proposé. man xanaa nañ loolu mooy li am solo. de déjà ban xam li intéressé ban diagnostic ngay def. li intéressé diagnostic bi moom ñun ñëpp bi ñu nekk tey ñun ñu xam ko xool naka lañ koy améliorer juróom at yii di ñëw. diagnostic bi mooy lan yow dafa yow la mooy sa diagnostic. nga ko. xam nañ ko non non non aujourd'hui fii ñu toll nii. yaa est-ce on a réussi la politique d'emploi. non. c'est un échec. oui. d'accord la politique d'emploi parce que bi ñuy def le plan le le le plan Sénégal émergent on avait projeté que danay am bu ñu paree au moins six cent mille emplois quand on a fait le bilan on n'était pas à ce niveau donc boo ko diagnostiqué atteindre loo ko mais il y a pas que ça. donc les chiffres yi gouvernement bi di joxe. da ngaa dégg euh, ñu la da ngaa dégg ñu ne le chiffre yu ñu projeté woon. ak nañ 450 donc yow loolu sax da koy. da nga koy rejeté man dégguma gouvernement wax dama ne la chiffres xam nga aussi des emplois xam nga tu fais une balance net emploi yi dans tous les cas mënut a nekk emploi yu réer xam nga man damay wax je te parle je parle d' emploi aussi d' sérieux aussi dama ne la ñoom ci seen bopp xam nañu ne. pourquoi l' emploi devenu une préoccupation chaque fois on en parle parce que effectivement les résultats n'ont pas été léegi bu fekkee atteindre nañ ko c'est très simple il faut aller voir ce qui était projeté dans le PSE et ce qui nga comparer loolu jarul werante et lajj boobu ñu lajjee ci emploi euh, bokk na ci li générer euh, l'immigration clandestine. waaw bokk na ci li ko générer c'est une réalité bokk na ci li ko générer c'est une réalité du rek lu ma constaté man man dem naa ci zone de départ yi dem naa à l'arrivée bi ma jógee New York yàggul d'ailleurs j'en profit pour féliciter euh, communauté sénégalaise ba nekk foofu ak ni ñuy taxawee doomu sénégal yi jaar ci Nicaragua bi parce que man dem naa New York xam nga man yàgg naa dem New York 92 États-Unis la jànge gis naa fa loo xam ne lii ren laa ko mas a gis. c'est première. waaw ren laa ko mas a gis ci sedd bi ay xale yi doomu Sénégal dem New York. du New York rek ñuy dem na New York ñu jàdd ci yeneen dëkk yi ci sedd bi ñuy taxawaalu ci mbedd yi 116e avenue kër ku dem Sénégalais bu dem Amérique xam nga loolu doomi Sénégalais yi fa ne dans des condition extremement difficiles dem naa kër euh, benn Sénégalais aussi j'en profite pour fekkente ne euh, peut-être réew mi xamul lu ñuy def man ma profité wax ko muy imam euh, imam Omar ñas lu tudd muy doomu Sénégalais bu nekk foofu tey di dimbali xale Sénégal du moom rek waaye moom dem naa moom boofu ci moom keroog ba ma demee ci këram la ma fa fekk ci Sénégal yu fa fanaan mat na ñaar téeméer këram laa wax falaa jullee ñu ndoog ñoom tàkkusaan falaa jullee ndoom ak ñoom timis di waxtaan ak xale yi la ma fa fekk du rek uniquement sax ay xale la ma fa fekk mooy ay doomi Sénégal ñii ngi liggéey ñii duñ liggéey am na ci ay fonctionnaire am na ci ay maîtrisards yoo xam ne ña nga foofu noonu parce que boo leen laajee leen tax a dem lan lay wax mooy amatuñu yaakaar loolu inventé wu ma ko c'est un déglu ma c'est un fait boo leen daan rejeté bi ngeen nekkee déglu ma dama xam nga da ngeen doon wax naan euh, gouvernement bi indi na ay projet euh, entrepreneuriat ñu ngi financé ndaw yi euh, dem leen bayi dem leen il faut peut-être se poser cette question c'est vrai aujourd'hui la vérité mooy li ma la wax mooy man mii du rek ay du man sama sama sama sama sama kër ci boppam bi ma nekkee intérieur am na benn policier bu fa nekkoon bokk na ci ñu dem tey xëy xëy rek foo ne maa ngi États-Unis foo jaar yoon Nicaragua am nay fonctionnaires yu dem man j'en ne donc. loolu c'est un constat. donc phénomène bi ça va au-delà d'une problématique liée au chômage. non cest à du chômage c'est-à-dire que chômage bi moo ci ëpp. waaye am na un fonctionnaire qui quitte qui quitte un policier la koy waral c'est très simple. la koy waral mooy li may charge bi ma yore li may gagner mënuma ko téye. loolu moo tax ñu wuti lenn en vérité c'est ça que nga yor tuuti wala nga ñàkk a yore c'est juste un problème de aujourd'hui liggéey ak revenu booy am nga jàpp ne mën nga ci suturlu wala déet recevoir naa fii ay nit yoo xam ne dañ ne ma ñi ngi ci yoonu dem groupe bu bari waaw mais les promesses que yi ngeen ñu daan def naan ñu euh, euh, président wàññi na Euh, impost sur le revenu wàññi nañu loyer bi Sénégal avancé na Sénégal émergent na xanaa Sénégal émergent tout encore une fois <laughs> xam nga Sénégal aussi la mu mooy Sénégal émergent en l'an 2035 on est en 2024 xanaa Sénégal émergent atul mi ngi am taux de croissance de waaye mi ngi am également parallèlement augmentation chômage tout ça c'est des chiffres yoo xam ne du man maa ko wax agence bi nga xam ne moo ko wax moo ko firndeel te nekk agence su gouvernement en moyenne at yi yëpp bu ñu seetee moyenne croissance bi dem na cinq pour cent mooy maanaam suñ koom yokk na waaye tamit même agence boobu moo jàpp ne suñ taux de euh, nu mu chômage bi yokk na doublé na sax de.